asalaamaaleykum mbokk yi teel a talaata ñaar fukki fan ak benn ci muharram muy weeru tam xarit di weer bi njëkk ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo junni ak ñaar fukk ak ñett ñaar fukki fan ak benn dafa bokk ci lim yu fàtt yi kon tey ci talaata ji rafetul ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci jàngoro yi siti ak ndof ak ngaana ak mbooleem jàngoro yu bon yi allahuma inni aoudu bika min albarasi wal jununi wal judaami wa min sayil asqaam allahumma inni audu bika min albarasi waljunooni waljudaami wa min sayil asqaam xadiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aji gëm ji bu ko dee teewalee dees na ko bélal ci ngërëmul yàlla ak tiraangaam amul dara luy gën a sopplu ci moom ci li nekk ci kanamam day sopp dajeek yàlla yàlla it sopp dajeek moom xadis bi buxaari yi génnee na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al muminu ida xadarahu al mawt bussira bi ridwanillahi wa karamati fa laysa shay'un ahabba ilayhi mimma amaama fa ahabba liqaa allahi wa ahabba allahu a axrajahu buxaari waxtu julli suba waxtaan dana tàbbi cinq heures trente-neuf juróomi waxtu yi tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent tisbaar treize heures quarante benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili tàkkusaan seize heures quarante ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukki simili timis dix-neuf juróom-ñaari waxtu yi tegal fanweeri simili ak ñeent gee vingt heures cinq juróom-ñetti waxtu yi tegal ñeent fukki simili ak juróom loolu mooy waxtu julli ci Touba ak li bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres dina wàññil benn simili soo ko féetee sowwu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saloum téeméeri kilomètres juróom benn waxtu yi tegal juróom fukki simili ak ñeent di so yàlla nangul te nangul leen amin